Mhm. sant yàlla d'abord parce que étant musulman d'abord croyant koy sant yàlla mu yem foofu parce que pour l'instant dégg ku nu dese ay blessés lañu dégg même si y en a quatre qui sont quand même graves bon euh, li mu développé phénomène bu xew la euh, lu xew rek nit ñi wala ñu dem dimbali ko dañu koy filmer euh, pour di ko balancer ci réseaux sociaux yi loolu phénomène bu xew la yemul sax Sénégal ci monde bi dafa malheureusement loolu ñu ñi nañ ko bon euh, am na beneen côté boo xam ne également euh, il faut ñu constaté ko du ne aéroport bi ak infrastructure aéroport bi moo nekk en cause déjà loolu c'est très important parce que Sénégal dañ ko mos a réputé comme un aéroport sûr li mu nekk fii Dakar Yoff li mu fi nekk yépp alhamdulilah bari wu ay catastrophe yu ñu am ñu sant ko yàlla bu baax a baax donc c'est pas les infrastructures qui sont en cause c'est un problème technique de l'appareil bon appareil bi dañu ko affrété Air Sénégal da ko loué pour ñu comprendre affrètement ndax boo ko waxee am du ñu xam lu affrètement daf ko ndax amuñu avion yu doy ñu loué avion boobu ah avion bi bala muy naaw aussi eh, comme ni mu ko waxee am na ay eh, normes yoo xam ne dana ko respecté ay inspection yu ñu wax di xool régulièrement ndax moteur bi baax na ndax pneu yi nangam ndax pneu yi nangam avion doo ñoo rek taal dem dañu am ay certification yoo xam ne ay kayit yoo xam ne bu ñu la ko defalee bu autorisé wul dañu jàpp ne avion bi war naa mën a naaw maintenant accident am na c'est un accident dafa am ñoo xam ne ñoo spécialisé ci affaire accident avion muy BA comme ni mu ko waxee bureau enquête et analyse ñooñu tant que ñoom waxuñu lan moo tax avion bi raté décalage kuy waxee da ngay wax rek sa xel mu neex la la sa xel jox. mais dañu war a am dal tuuti xaar bañ yàkkamti ba ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey ndax affaire avion du lu yomb du ku jóg wax ci ñooñu bu ñu ñëwee na ba enquête ko ba xool ba nag lii kat lii moo ko moo ko moo ko waral léegi xool responsabilité bon est-ce qu'on peut faire pour améliorer mu gën a baax ndax ñi nekkoon di filmer bañ naa ne jóge leen foofu aussi ana sécurité bi pour ñu mën a accéder sur le site loolu c'est déjà un problème bon deuxième problème aussi ñu ci waxtaan ak nit ñi parce que occasion la aussi pour ñu xamal nit ñi. phénomène boo xam ne dafa xew ñu profité ci lu mel nii pour gën a yeeti ñi parce que nit ñi kenn du wax ak ñoom kenn du leneen nit bu nekk ci jafe-jafe li nga wax a def en tant que nekk jullit mooy nga dem sowe ko waaye en tant que nit waaw dama waaw déjà wala xat karam naa bani adama xam nga euh, alxuraan dafa am yi mu indi yoo xam ne dafa am sas soo xam ne saa su ne yow en tant que jullit du la wàcc donc moo tax ma ne da en tant que de premier croyant nit bu nekk ci jafe-jafe li ngay wutee ne maa ko filmé maa ko dugal ci internet bi déedéet li la dina sa diine lim la sant ñu yaree la ko mooy daba nga xool kii nan laa war man a def ba mën ko dimbali. waaw je pense que yooyu occasion la aussi ñu mën ci waxtaan Sénégal nag aussi dañu am feebar dañu am feebar bu fi ne te yéen ñii ay responsable ngeen les hommes de communication ñun bu nga nekkee xale dañ daan déglu rajo Sénégal boobu benn rajo am moom la teg ci diggu kër gi tu veux tu écoutes alors y avait des émissions yoo xam dañ doon waxtaan ci société bi ñu koy wax ay Kër Noflaay Kër Noflaay dañuy jël thème sur l'hygiène ah ñaan ay man de tey xam naa ne sama gàcce gi service d'hygiène dafa ñëw visiter ma boobu visite la ñuy wax parce que ay ndaa moo nekkoon ñu xool ndaa yi ndax si c'est bien propre kër gi si c'est bien balayé ñu ne loolu la son suñu yaay yi tuddee woon visiter dañ may visiter tey dañ maa marqué tey dañ maa jàpp mu ñu koy waxtaanee ay thèmes parce que théâtre radiophonique sous cette forme là mais pour yee nit ñi yooyu tey anama amatul nit ñi dañuy dox di dem les sénégalais malheureusement les journaux li muy bari bari les sénégalais ne lisent pas les journaux ils lisent les gis gaa ñi taxaw def nii xool titres yi. ya kii lii la def. kii sàcc na terrain nekk ci ay nekk société xam ne dañ ci war a xool aussi nan lañ que on a une nation à former les Sénégalais ne la maison de chercher les journaux damay teg damay xool j'en vois aucun qui lit bu ñëwee souvent dañuy ñëw ñu xool titre yi euh, teg nañ ko dem bon je dis ça à Nabil ma di yow sax yaa ma parce que ñoo au moins dañu xool titre yi <laughs> man ça va que fa ma ko lemoon ba mu ñëwee bon alors que ñun sunu papa yi bu ñu doon formé da lii nga tel livre ndax tel nga tel livre donc ak côté boobu man je pense que aussi ci éducation bi war nañu xoolaat qu'est-ce encore euh, faire. day fekk sax journaux yi nga wóoru leen xam nga yaa ngi naan liir journal.